président Macky Sall président Idrissa Seck. Mhm. Madické Ousmane Sonko. Ousmane Sonko. Mhm. Mhm. pur. cinq Madické Macky Sall euh, Idrissa Seck c'est la continuité parce que quoi qu'on dise c'est des enfants du PDS. xam nga depuis Senghor PS PDS loolu la ñu xam Issa Sall ak euh, te ñett ñooñu bu ñu totalité seen ay voix ils ont eu quatre-vingt pour cent presque ou plus quatre-vingt pour cent. Sonko ak Idi euh, Sonko ak Issa Sall ils ont pour cent loolu mooy wane ne 20 pour cent ñoo bëgg rupture am 80 pour cent ñoo bëgg continuité am mais continuité mooy résultat bi continuité mooy nju njaaj day continuer continuité mooy suñuy doom dañuy jël gal continuité mooy lu ñuy dund nii amul liggéey amul dara continuité mooy le voisin le voyer moi le pasar pasaree xaalis mais dafa mel ni sénégalais 80 pour cent yi lii moo leen neex mais c'est bien. man aw ma ci commentaire mooy waxal waxal nga leen ko daal euh, avertir nga leen Sénégalais yi. mais dem nañ ci kaso doo nañu ay liif mas nañu courant këpp ñu ndox bu booy boo xam ne da ngay okkatu guddi gi yëpp daj nañ ci lu ne daj nañ ci lu ne ay ñoom Guy Marius Sagna daj ci lu ne yeneen mouvement yi nitu dëgg euh, euh, j'en passe rëccu fal ma ki ñeneen ak daj ci lu ne mais ils sont vingt pour cent quatre-vingt pour cent lii la bëgg ay transhumance ay njuut njaat xam nga lan mooy Sénégal Sénégal mooy comme benn école directeur école bi day day euh, woo benn photographe ne suba dama bëgg nga ñëw fotol ma xale yi ñaata nga ma koy defaree photographe bi ne mille 1000 francs mu ne ko non 500 francs photographe bi ne ok mhm. directeur bi woo professeur yi ne leen suba waxal élève yi kuy ñëw na nga indaale 1000 francs dañuy fotow professeur bi dem ci élève yi ne suba wax leen seen parent kuy ñëw na indaale 1500 dañuy fotow élève bi dem ci parent bi ne ko yaay booy suba nee na ñu indaale mille francs <laughs> ku nekk lekk ci dañuy fotow mm-hmm. yaay ji papa ji ñëw ne ko sa doom de suba ku nekk cent la war a indi dañuy fotow papa ji joxe deux mille cinq cent yaay bi encaissé téeméer yi booy bi jox deux mille booy yi booy bi encaissé téeméer yi jox mille cinq cent professeur bi professeur bi encaissé téeméer yi jox mille francs directeur bi directeur bi encaissé téeméer yi dem kii ñooñu noonu ñooy màgg ñooñu noonu ñooy fexe ba jot ci réew mi léegi milliards am ñu noonu c'est ça le reflet de la société sénégalaise mm-hmm. et ñooñu noonu après ñooy nekk suñu ay dirigeants parce que suñu ay dirigeants yi jógeewuñu Zimbabwe ah jugeewuñu Turquie jugeewuñu euh, euh, Hongrie fii la ñu juróo di yaroo ni yow wax man di naan ci ndox bi di naan ci ataaya bi di fréquenter koñ yi et cetera dem ba nekk ci kaw parce que on est une société da ba nañ ma baal quoi ñi nga xam ne pratique yooyu noonu moo fi am avec ça émergence yéen ay wax la rek gëmu leen ko benn yoon mais on quels sont les lan ban alerte nga lancé wala lan nga def wala lan moo am ci suñu ay émission télé wala ci suñu ay émission ci site internet yi loo xam ne day am benn lavage de cerveau wala da koy commencer très tôt avec les enfants à bas âge dans les écoles primaires loo xam ne dina am benn benn benn xeetu euh, euh, émergence amul je suis désolé saa waay dama fi xew ci politique bi c'est à l'image du peuple sénégalais ñun nu ñu mel noonu la waa ci kaw mel xam nga da ngay ñëw ñu tam la dëmm dangay ñëw yow ngay ñafe di liggéey di xoslu di jaay nekk ci ay commerce jënd jaay yéeg wàcc bind ay projet ñu subventionné la mu légal ñu tam la dëmm xam wax la du n'importe quoi te teguñu ko sur quelle sur benn base mhm. mais noonu la suñu ay dirigeants yi tamit du ñu wax du n'importe quoi suba ñu ñu wax waxeet te duñ ko teg ci benn base mhm. parce que on est comme ça mhm. kon da nga jàpp daal langue politique bi <laughs> ñëpp a yem daal loolu nga jàpp yaa ko wax ah man je di dis ce n'est pas eux c'est le peuple. Mhm. si le peuple veut le changement yéen par yéen combat bi yéen da ngeen bëgg croiser les bras wala da ngeen bëgg tamit yeeslaat seen xeex tamit wala da ngeen bëgg rek bàyyi ak askan bi ci jafe-jafe yi ñu dund léegi. xam nga man tey da xam nga man da xaar loolu boo invité waa a marre en tant que Y'en a marriste man suis Y'en mais toogaluma fi Y'en a marre tu vois da ma woo en tant que Simon Bisbitlen en tant que Simon artiste temps yi may wax ci bu yan boo invité Y'en a marre mhm. ñu toog fi nañ la wax fan la ñu toll ci combat mais man li ma lay wax encore fois mooy li may jël ci jotaay yi température bi parce que je suis en contact avec le peuple sénégalais mm-hmm. every day night and day sama koñ Gueule Tapée Médina Fass fi may toog yëpp Fann Ok ni may jël ay zone A ay zone B Grand Dakar li may jël moom laa lay indil mm-hmm. et constat bi ma def avec parce que wër nañu Sénégal def nañu les quatorze régions mm-hmm. constat boobu noonu laay waxee dama ne ci kaw du changer tant que ñun changé wuñu ñun ñooy fal ñii parce que ni ñu leen di fale jikko yu jikko ñoom yu ñu am di njuuj njaaj di transhumance di kii moo nekk si ñun et bés bu ñu bëggee ñun ñun bu ñu changé dañuy bëgg ci kaw mu am ku baax mais mais da koy dégg sax yenn saa yi nga dégg non politique bi noo kii boo ko falee kii day tëj ñëpp kaso kii kanam gi nu mu tëjoo mm-hmm. ñaata yoon nga ko dégg parce que sénégalais bi il préfère njuuj njaaj mm-hmm. dañ ma baal ci kàddu yi mais loolu laa ci xalaat ko 12 <laughs> minutes chrono tey Simon la ñu dalal nekk euh, rappeur la ñuy wax nekk tamit li nga xamante moo di membre euh, Bispi Klein euh, tamit am na li nga xamante ni tamit xew na ci actualité bi récemment ñu gisoon ki di Ousmane Sonko démb mu def benn genre jiboole ki nga xamante moo di maître Moussa Diop ak tamit ki nga xamante moo di Barthélémy Dias ab rëkk démb ñoom ñaar ñu doon tamante dëmm je veux dire que di xasante tey ñu jiboo loolu par exemple yow ban image lay jox ci langue politique bi aucunement je n'ai même pas mon mot à dire dama ne langu langu politique bi. Mhm. c'est à l'image de ñun askan wi. foofu laa mën a yem maintenant ku mën a analyser ku mën a def lu ko neex mais voilà maintenant man j'ai beaucoup de, pour wax dëgg j'ai beaucoup de respect pour Barthélémy Diaz parce que gis naa dëggoom quoi. Mhm. xam nga monsieur le maire Barthélémy Diaz dama gis dëggoom dama gis voilà mu constant. Mhm. Ousmane Sonko tamit. moom laa gis ci moom président Ousmane Sonko mu dëggu mu constant nekk ci xeex bi tu vois comme d'autres politiques tous les politiques ne sont pas pourris même du côté de l'État am na xam ne ils te font des résultats ñu ngi koy teg ci yoon ñu ngi liggéey et am nañu benn certaine constance quoi tu vois tey ku xool tey euh, euh, euh, bon du ma sax dugg ci yenn mais li ma bëgg a wax rek mooy tout le monde n'est pas n'est pas n'est pas en tout cas ces deux personnes j'ai énormément de kii euh, maître Moussa nag xaw ma ko. tu vois mais li ma xam ci moom mooy apparemment il la relevé Dakar Dem Dikk tey def na ko Sénégal Dem Dikk dem kii loolu kese laa xam ci moom mais ñaar ñi nii ma la limal ñoom laa la mën a génneel ne gis naa seen dëggu seen bëggu Sénégal seen patriotisme ak seen engagement ak seen constance. Mhm. maintenant. ay juboo juboowuñu loolu je le commente je le je le je le <laughs> mel ni tamit euh, xam naa ni waxtu bi ngi ñuy xooj Simon euh, ñu tëjee ko rek ñu gis tamit phénomène jamono ji ñu gis mbirum tamit ñàkk ndox mi Sénégalais di ko ñaxtu yéen tamit saa su ñëw ngeen di wax di wax ci askan bi di tamit ngir euh, ñu gis boo xoolee ñaari tali je veux ay ñetti a ngi nii amuñu ndox yow boo déggee Sénégal en deux mille en deux mille vingt di am problème mu ndox lu mu def. loolu moo neex Sénégalais yi ñoo fal suñu ay dirigeants. saa man foofu laay ñëwaat de. Mhm. bul ma bul ma jéem a waxloo leneen parce que li ma la wax euh, décembre 2019 maa ngi doon def benn vidéo mu ngi ci net bi di wax ci problème mu SDE ak Suez parce que Suez tey ñoo jël ndox bi nii seen o moo ñu yemee lii mën na leen parce que boobu ñu ngi doon jot ay information tu vois euh, ci journaliste bi dem si yàlla si ki nekkoon seen TV damay fàtte turam sax non non mhm. ma Mamour quelque chose ou Mansour xaw ma lan damay fàtte turam mhm. parce que woowoon naa ko ba mu jox ma vraiment ay information mhm. xam nga di saluer mémoire am yàlla na suuf sedd ci kawam euh, ay euh, Mignane Mignane Diouf bu forum civil tamit xam nga woowoon naa ko kii mun nañu make après bu ma defee sama enquête ak lépp waxtaan ci ak ñenn ñi ñoom Fadel Barro sax à l'époque doon def investigation et demoon nañu ba xam ne bés bu Suez jëlee ndox bi ak tooxi doona yu mu jotaguñ def feneen foo xam ne géré na fa ndox parce que Suez tamit la ñu joxoon ñu tabaxal ñu suñu kër Momar Sarr bi nii. ñu waroon ko def 9 mètres ñu def ko 6 mètres cubes ba affaire bi mu mujj pete ba Sénégal toogoon jamono jooju lu yàgg amul ndox. mais ñu dénoncé loolu yépp ñu ne sénégalais waruñu seetaan tey ñii ñu nekk sur toutes les chaines de décision de l'eau sénégalaise quand même alors que SDE def na ay preuves. def na ay preuve ba boo demee màkk ndoxu màkk SDE moo koy gérer ñu crier ko wax ko ne on aura tous les problèmes du monde kenn faale wu ñu tey gars jox nañ ko Suez tey ndox ngi coupé problème yaa ngi nii. saa waay bu ñuy continuer nii di nga wax fii ba suba gars yi duñ la dégg parce que xam nga lu tax ça ne les arrange pas ku ci nekk sa intérêt nga nekk par exemple tey. pêcheurs yi bu ñu amee problème ci pêche bi. Mhm. effectivement dañ lay ñëw seet si waaye dañu bëgg nga waxal ñu nga waxal leen seen problème bu réglé ñu dem toog mhm. étudiants yi nga xam ne orienté wuñu leen ñëw waaye dañu bëgg nga kii nga ñëw waxal leen seen problème bu réglé ñu dem toog. Mhm. tailleurs yi bu kiiwee pareil baykat yi bu ñu amee problème nga ñëw taxaw wax seen problème réglé ñu dem toog imaam yi ñeneen yi et cetera ku ci nekk ku ci nekk sa problème. mais on décide pas de faire comme ça de songondoo et de def ni changer kat ji li nga xam ne mu ngi fi depuis deux mille neuf cent soixante essayer lu nouveau lu bees avec des hommes qui aiment le Sénégal patriotes et am yéene yóbbu ko fu sore mais on ne veut pas essayer ça et tey on veut que à chaque année saa waay déwén di nga ma invité waat fii ne ma waa mais Simon courant bi ngay coupé loo ci wax déwén di nga ma invité waat fii ne mais Simon problème mu ndox bi loo ciy wax déwén di nga ma invité fii ne ma mais Simon Euh, dem bii nii gars yi di jël gaal bi loo ciy wax di nga ma invité at fii na ma mais njuuj euh, njaaj bu ñuy njuuj njaaj suñu suuf loo ci wax tu sais pourquoi parce que on veut pas changer nañ ko waxte de. Mhm. on veut pas changer. di ko jaaj jaajëfal bu baax Simon Besbikane Simon. sa kàddu gu mujj tey gis nañu wax dëgg yàlla sacrifice yi nga def ba mën a fekk émission yi. ak tamit mhm. euh, coono waaw di jégalu mhm. ci mhm. di di jégalu ci yéex a ñëw bi amoon na lu xew ci VDN mu bloqué donc ndox yi euh, ma ne ndox yi wala yóbbu nga ma ci wax. embouteillage <laughs> embouteillage bi oto mënul bouger. di jégalu ci loolu di la remercier ci dalal bi. di jégalu auprès de de yi comme ni mu koy waxee yenn saa yi xam nga damay wax avec benn certaine fougue sax di yuuxu wala di kii da foog ne lenn la. alors que da ngay foog ne sax ñàkk teggin la alors que non xam naa deretu Casamance Casamance bi la rek buy daw sama kii xam nga ñun moom bu ñuy wax dañuy yuuxu wala dañuy expressif mais di jéggalu su fekkee ne wax nañu euh, d'une certaine manière waaw naka sa dul noonu euh, ngeen jàpp ne lépp lu baax euh, borom bi la lépp lu ci bon ñun la di ci jéggalu bu baax et di wax encore une fois suñu frère yi nga xam ne candidat à l'immigration clandestine mm-hmm. tey avec loi yi gars yi signé gis nañu ministre des affaires étrangères bu Espagne ñëw fii mhm. dem na Mauritanie Maroc signé nañu ay accord tey non seulement di nga risquer sa life ci géej mais même boo amee chance jàll boo yeggee fële dañ lay ne critique dugalaat la indiwaat la parce que loi yooyu lañu la ñu kii gisatuñu kenn ku rëcc donc non seulement da ngay ñàkk sa mën nga ñàkk sa bakkan te bakkan du lu ñuy sàggane mais da ngay ñàkk sa xaalis mhm. en plus boo yeggee fee dañ lay delloo du comme daanoon na la jël formé la yenn saa yóbbu la sax ci champs yi ngay witt ay affaires yooyu di am as tuuti di yónnee sa njaboot non maintenant avec les nouvelles conventions képp ku ñu jàpp ni dañ lay indiwaat donc bul risque sa bakkan en plus boo demee tamit nga am sa xaalis nga ñàkk ko donc waaw boo nga joxe sa xaalis ñàkk ko pour man jaru ko quoi waaw bakkan moom dara gënu ko foofu mais on est très mal placé aussi ñun pour parler à des jeunes yoo xam ne déggatuñu jat parce que instant bi ni may wax ak yow am na kenn si ñoom ku toog seen gazu kër jeex mënu ko fay yaayam a ngi tëdd feebar ordonnance baa ngi noonu tegu mënu ko fay jabaram a ngi tëdd wala doomam a ngi tëdd donc kooku am na yenn souffrance yu muy dund ak société bi tamit bi ma wax ñun on est tous coupables ñu ngi koy agressé il nous est très difficile de parler à leur place mais lu ñu mën rek mooy conseiller wax leen ne bakkan dara gënu ko foor xam nga Euh, bu leen di calquer seen life par rapport ak life fu kële kële am na oto. kële am na lii foog ma am ko wala kële dem na kaaw génn ci xam nga. man foog ma foog ma foog ma foog ma def noonu peut-être que les wërsëgam du sa wërsëg quoi. Mhm. donc di ñaan gars yi métti na métti na à un point bi nga xam ne ñun mënuñu mais ñun wax rek la ñu mën te seen jàmm bakkan lañ leen bëggal. Mhm. di jéggalu su fekkee ne débordé nañu. et di leen remercier encore une fois ci dalal. di ko remercier moom Simon wax dëgg yàlla tamit kàddu yi mu mujjee am na solo lool di ay kàddu ñaax di euh, li nga xamante ni moom moo di sensibilisation j'espère que ñi nga xamante ni ñoo ci ndaw ñi tamit dégg nañu kàddu euh, Simon yi euh, bi nga xamante ni maanaam ngir rek xeex li di immigration clandestine mbokk yi li ma nekkoon seen émission 12 minutes euh, chrono ñu leen koy déetal euh, talaata bu yàlla sàkk di jaajëfal lu baax wax dëgg yàlla équipe technique bi yëpp bu nekkoon ci liggéey bi yoroo ci caméra beeg Fallou Assane ak Fofana ci wàllu technique bi ñoom ñëpp leen di jaajëfal bu baax a baax dañ jox dig daje incha allahu rabbi talaata ak jàmm ak salaam ci benn émission 12 minutes chrono Leral TV Leral point net 33 TNT jërë ngeen jëf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 moo ko tax a jóg